mooy nekk septième combat de la soirée oh suñu xel day doon na suñu jaaykat yi doomu Pape Doudou mooy bëre loolu moo tent tent moo tent bopp bi day ñuy woy ginnaaw ak ki diggante ak kii di Zo Baye Doudou Seck ak Zo waaye Doudou Seck nekk doom ci waaye tey yow daw na tey yow nekk tey baay ba yàlla ko yàlla xaare àjjana si bàkk Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam abi waat na abi dakk na laal sifle waat nee na ngeen bëre Baye Doudou Seck ak Zo Baye Doudou Seck ma ñoon ginnaaw daa tedd bopp Zo mooy wer kanam ngeen moom ngeen lu ruus ñaari ba dégg leen doo borom drapeau bi dugg si na si biir Doudou Seck boo déglu boobu noonu daa ñëwoon ginnaaw ak kii di zone daa ñëwoon kanam daal di dem gam lu ruusi ba léegi ñoo ngi def loolu arbitre doon leen tere seen le deux moo nooy xeex leen da waxoon daal arbitre leen di avertir waaye yow xanaa lool si sëñ bi la ko digal xool yi jëwaat noonu lay defaat maa doon defaat ñoom ñëpp la indi leen tey leen sek do jaago ar ne leen dalante leen waay waay ñoom ñaar ku nekk yaa ngi xalaat sek do jaago Mbaye Doudou Seck ak Zo ñoo ngi dama tey baaraam Zo di door di raayante Zo daal di door abi bi ne ngeen bëre Mbaye Doudou Seck Zo Mbaye Doudou Seck na Zodo décret bi nga siraat Zodo do Zodo do doraat Zodo do doraat arbitre na Zodo ngi cokkaas Zodo ngi cokkaas waaye daru da ngay doonte Mbaye Dour Seck fayu na ñoo ngay xeex ñoom ñaar waxoon naa la ko ñoo ngay sukkande moo ngay sukk dambata nañ ngeem fu mu toll nii nag action léegi mu am may dudd ak zoo may ak zoo may dudd sekk jàpp ko takk na ko takk na ko Mbaye Doudou takk na ko takk na fu mu jëm moom oh Mbaye Doudou Seck fu mu jëm moom takkaat na ko ba léegi bàyyiwul da ngay jaay doon daan na ko sab na deux appui moo ngay bëgg a génn moo ngay bëgg a daw moo ngay suqi moo ngay suqi moytul moo ngay suqi moo ngay suqi sab na quatre daan na waay oh Mbaye Doudou Seck daan na waay oh, ay waay doomu du dakkati ba daan na waay moo ngay dem sa coach ba fu mu jëm fu mu jëm oh waay du jaay tekki daan na waay oh moo ngi wax ak Jules Baldé daanaka Jules Balde